bi bu le ministre de la santé et de l'action sociale lancé campagne bi ci réew mi le 23 le chef de l'État le président de la République le ko ndax ci le président de la République salle des banquets le palais présidentiel ñun tay ci suba. Nous avons taxaw wane ñun tam dessu ñu gënaaw démarrer effectivement la vaccination gis ngeen ko que gis weddi gis bokku ci gouvernement bi nak faté wuñu dañoo avons loxo ndax té doses tek nañ ko fi pour 21762 doses yo xamné parce que dañuy ñëwaat vacciner wat yenen 10862 881 le 18 muy mu rappel bi kon boog beral lañ bu loxo bu baax waaye wax nañ dëgg ndaxte mbaax mi daf ñu dugg bu baax naam teel lañ ko xam ndax xam ba xam jeex xam sa bopp moo gën a wóor te ñun dañu nekk ay nit yoo xam ne ci région bi yàlla daf ñu nattoo dañuy dem ak di dikk lool la suñu koom-koom laaj ndax loolu la suñu liggéey laaj loolu lañu yàlla cërale te ci dem beeg dikk bi ci la lépp ne kon bokk ñun xamoon nañ ne mbas mii bu ñu laalee ah, a dina xawa a métti ci ñun laal nañu nag métti na ci ñun ndaxte boo xoolee liy faatu boo xaymaa ci réew mi bu téeméeri nit amee mbas mi ñaar ba ci ñett ñooy faatu ci région bii bu téeméeri nit amee mbas mi juróom-ñett yi dañuy faatu kon ba mat na ñetti yoon niveau national niveau mondial itam ci àdduna yëpp mat lañ leen ñetti yoon kon bokk li fi faatu bëri mu am lu nëbbutam ndax bu wax jotee danga koy wax rek nekk loolu nekk na xeex ci biir xeex bi ñooñu nañu génn feeñ te xam ne weddi gis bokku ci ñii lànk itam ne bu leen kenn faj ndax sa ragal ñu joxoon liñ baaraam mbas mii ah ku mu dal du gàcca li ñu mën a wax daal mooy na ñëpp sabablu ndax neexu la moytu loo xam ne doo ko gis tuuti na ba doo ko gis waaye bari na doole ba ko boo xëj na boo ko doon gis doo xam na mu toll ndaxte loo xam ne dafa doonoo ko gis mu feebar loola neewal la doole ba yóbbu la dama yaakaar ne xëñ na doole jaa bari ba mënoo ko gis kon boog bu loo ñëwee muy ñakk bii ne la moo la ciy génne a ah yaakaar naa ne kenn waruñu ko wax ñaari yoon ñun day wane nañ fii ne kenn ñu ko wax ñaari yoon lii nga xam ne jaar nañ fu ne mu ne léegi nga taxaw mën a fay jóge xanaa la olof di wax naa taal bu taal taal bu tee tàkk bor bu ne nga koy ëppee yàlla may nañu nag wantaay bu rëy bu nga xam ne am na ñaakaar ne buñ ko ko ëppee safar si na tàng ba jëlee ko fi muy ñàkk yii ñun nag ñàkku nañ ndax boo jigle càngaay dangay ngay loolu moo tax ñu wane ne ñun xam nañ ñàkk bi wóolu nañ ñàkk bi looyaay looy doyul ñàkku nañu tam ñëpp di ko gis bu ko defee xanaa nag ñun bëgg nañ suñu bopp xanaa nit ñi gën ñoo bëgg sañ suñu suñu bopp kon mboog ginnaaw ñàkku nañu man mii docteur bii muy médecin chef docteur Dieng jiite wàllu santé ci région bi ñàkku na tey ñëpp di ko gis autorité yi ma dendeel muy adjoint gouverneur préfet adjoint administratif Euh, développement ñàkku nañ ñëpp di leen gis imam yi ñàkku nañu curé bi ñàkku nañu maire ñàkku conseil départemental ñàkku waa loolu mooy askan wi ñoo ñëw jiite kon boog li tax ma wax ko mooy nag mën ngeen a xam ne kon ñàkk bii ginnaaw ba président war faske ne ko def tey ministre bi def ko ñun ñu feelu leen kon boog ñëpp dañee war a topp te xam ne Sénégal dëkku xam-xam la dëkku gëstu la rawatina dëkk boo xam ne ci wàllu xeexu mbas mi dañ ko ràññee ci àddina loolu taxawaay la waaye loolu itam xam-xam la ndax ay nit pexe lañu fexe nañ ba suñu néew doole ci wàllu koom-koom feeñul ci xeex bi ci xeexu mbas bi au contraire raw nañ sax ba raw yoo xam ne réew yoo xam ne que ñoo ñooy ëpp koom-koom waaye suñuy résultat moo gën seen résultat bari na bu ñu xeeb suñu bopp am na lu ñu xam am na lu ñu mën am na fuñ jaar Sénégal si wàllu xam-xam jëm ci wàllu paj xam-xam yàgg na fi ba ca indépendance la ñu am bañ ko génn ci indépendance faculté de médecine bu dakaar loolu yàgg na bari ay ay docteurs yoo xam ne Sénégal gii ba tey moom lañ yaakaar di fi yebal seen doom ñu fiy jàngi sa xam-xam kon boog na nit ñi wóolu liñ leen di jox te xam ne ñun Sénégal dafa bëgg boppam dafa bëgg mbokkam duñ leen teg mukk loo xam ne daf leen di lor ne xel yi daal te xam ne ñun dañoo bëggante ñun ñëpp ay mbokk lañu kon boog liñ leen di dugal loo xam ne doy nañu xool nañ ko seetantal ko doy na àddina yëpp doy nañu. te àddina yëpp nag xam nañ ne ñàkk yi ñooñu ciy génne réew yi gën a mag ci àdduna yëpp ñu ngi pousse seeni population ñuy daw di ñàkku ji ku ñàkk jigul sax yaa ngi ut ay pexe pour gaaw ñu ñàkk la gouvernement bi nag indil ñu lii 10 881 doses ne leen nañu ñàkku leen beral nañu loxo ndaxte tam yëfi daf ñoo laal bu baax deeñ dellu sewaat nag dans trois semaines defaat rappel moo tax ñu joxuñu carte yii pour wane ne moom ngay indiwaat pour ñu ñàkk la ginnaaw bañ la bindee ci registre bi ñu rappel la suñu ñàkkoo ba pare comme niñ ko defee takkaat suñuy masque yoraat suñuy alcool ku ñàkku na ko def ku ñàkkoogul tam na nga ca def ba ker ba nga kon ba bu ndaku benn yoon amuñu droit ndaku ñun ci région de Diourbel ndax bu ñu bàyyi ndakoo bañu tudd rek waaye li gis àndul ak bàyyandiku suñu mbokk yi dem fii boo demee bàq ya lañ fay denc ci aw nit bés bu ne xam nga ni jëggi na dayoo ku ko kontewul sax waññoo ko boo demee taxaw Touba ak sëki imaam yi li ñuy jullee par jour xam nañ ne loolu jëggi na dayoo te du daara lu ci ëpp muy mbas mii ne fi ah suñu borom nag moo yor bakkan yi moo yore jaam yi Euh, ku nekk moo xam waxtu woomu lay yóbbu ak naka lay yóbboo waaye li bu ñu sant mooy sabablu te sabablu faratal la ci jullit farata la ci nit ku ne ñëpp farataal ñakk yi ndax bu ñëpp ñàkkoo maase ah yëfi dootul am di fu mu jaar bu yëpp amee maase li tubaab naan immunité collective boobu nag mooy immunité réelle bi nag moom mooy fexe ba ñëpp maase ndoo ñakk su la bàyyee bu jubloo ci si ki nga dendeel kooku itam lekkate ñàkku na bu bàyyee kooku yaakaar na keneen mën na faa jaare bu demee fekk fa loo ñàkk ba ndax ñàkk dañuy jël ci doomu microbe bi maanaam li nga xam ne moo la war a feebarloo wàññi dooleem wàññi dooleem ba du la mën a feebarloo ñu ñekk ko ñàkk la ko bu ko defee sa yaram daal di tàmbali xeex bi ba xam ne lii la war a feebar nag muy microbe bi nag bu ñëwee fekk na yow sa yaram tàmbali na xeex bi bu yàgg ba du la mënal dara loolu mooy principe bu ñàkku mooy lii ñu dugal tey dañ koy néewal doole ba nga xam ne moom day tàmbalee xeex bu tàmbalee xeex nag bu xeex carrément bi ñëwee moom fekk na moom pare na tàmb na xeex ba pare lu fa dugg rek ne day xeex fekk na moom moom tàmbali naa xeex moom day continuer ak moom rek tekk na le loolu mooy principe bu ñàkk kon bok ñun mën nañ wax ne docteur ci kanamu docteur lay waxe mom mën na deugal limay wax kon bok mën na wax ne ñun ñi ñaku tay suñu yaram bu doon arène bala mané tambalé lañu xex bi ñom kon bok bu mbeurum mbass joge fele ñew songuñu fekk na ñun tambal lañ suñu yaram tangana ba paré kon bok ku ko deful won bo joge nga def ko lool dal moy ñak moy ñak mooy pare nga pare la pare nag moo gën a wóor te kala naa naam ne fa pare daal moo gën a wóor kon boog ñun pare nañ di ñaan yàlla lii nekk lu réussir ba ñëpp daal daw jublu ci ba xam ne dina fi génne ñu delluwaat na woon muy région bi nga xam ne liggéey la ñu xamee ay doomam jaamu yàlla nañ xamee ay doomam muy région de Diourbel bii